RFM matin 7 h sunu gan Pape Demba Ndiaye salaamaaleykum. waaleykum salaam Abacar. yaa jiite yaay directeur euh, troupe Daaray Kocc. Euh, di troupe bu troupe bu cosaan la ci Sénégal. ci wàllu liñ fi woowee théâtre euh, ci jamono ba léegi. Mhm. naam troupe bi gis nañu at yi Euh, gisunu leen dañ ci dellusi ci kanam waaye fi ñu njëkk bëgg a waxtaanee ak yow Maka laaj Ndiogou Diène mooy li ñu seetlu fan yi euh, chaîne bu mag boobu nekk ca France tudd Canal ci bouquet bi nga xam ne moom lay jaay fii ci réew mi ak feneen daal di créer benn chaîne télé bu bees tuddee ko sunu yëf ngir euh, série Sénégal yeeg téléfilm yi di di daw foofa loola noo gisee. Euh, lu ni ci lu tax ñoom ñu intéressé wu ci loolu ak itam producteurs yi nga xam ne ñoo ne fii ci réew mi itam euh, jublu foofa itam ngir jaay leen ko xëy na loo koy tekkee ak euh, crise bu am ci secteur bi. jërëjëf Babacar di rafetlu invitation bi di profiter si occasion bi pour nuyu auditeur ak auditrice su RFM yëpp dëgg la Babacar ndax temps yi du quoi depuis le 7 novembre. gis nañu benn chaine boo xam ne dafa bokk ci bouquet kanaal bi ñu duppee ko suñu yëf muy euh, diffuser ay téléfilm sénégalais ak aussi euh, série yi euh, loolu peut-être xëy na li ko waral pour man stratégie marketing la de la part de cette chaîne de télévision canal pour jéem a capter vraiment téléspectateurs sénégalais yi parce que gis nañ ne sénégalais yi dans leur majorité bëgg nañu théâtre trop donc c'est tout à fait normal que boo nekkee si si domaine boobu nga nekk une chaîne une chaîne boo xam ne euh, da nga compter si recette euh, ñiy jëfandikoo chaîne boobu nga leen di proposer li nga xam ne bëgg nañ ko te sénégalais yi tamit euh, bëgg nañu théâtre trop donc moi je trouve que c'est normal léegi nag euh, li ko waral est-ce que ñun euh, les producteurs ñooy jaay wala yu demee noonu producteurs yi jaayuñu te bu ñu dem jaay mais chaîne boobu moo ñëw vers les producteurs ñi nga xam ne ñoo yore produits yi que mu nekk euh, daaray Kocc wala Soleil Levant wala ñi nga xam ne ñooy produire euh, séries yi actuellement ñoo ñëw defal leen ay proposition jëndaat affaire yi loolu nag ma gis ne lu baax la tamit si si producteur parce que d'abord euh, dina permettre ñu am ay recettes additionnelles recettes yoo xam ne xëy na yaakaaruñu ko woon sax ndax euh, defaloon nañu produit bi jaayoon nañ ko wala euh, am na. ñoom ñu si bëri ci ñoom sax euh, yaa ma ko gën a xam mhm. bu ñu defaree seen série ba noppi bu ñu ko doon jaay télé Sénégal yi du sax du dum jaay dañuy uti ay sponsor daal di séddoo. loola gaa ñi ne ñu gisuñ ci seen bopp itam. mais très bien parce que tamit euh, boo ñu baal ma parce que tamit maa ngi nekk si benn groupe boo xam ne aussi dañu. aywa aywa am <laughs> une télévision mais. Euh, télévision yi chaîne de télévision Sénégal li ma seetlu mooy dañu bëgg trop euh, facilité dañu bëgg a trop facilité parce que yow yow yaay def sa lépp euh, booy produit sa film wala muy téléfilm wala muy doon série yaay jël yaay def sa tournage yaay assurer sa frais tournage yaay bind sa scénario yaay def sa montage et loolu yëpp sincèrement xaalis dëgg dëgg dëgg la quoi léegi nag boo pare yóbbu ko si télévision bi léegi parfois sponsor sax yaa koy wuti xëy na télé bi tam mën na uti sponsor mais bu uti sponsor sax dana naan maa lay ëppale euh, yow bu ngeen. Euh, amee ay pour cent jox leen 40 pour cent wala mhm. parfois cinquante 50. alors que tout le gros du travail a été fait. par euh, les producteurs wala les réalisateurs nga ñëw télé bi moom diffuser rek déjà la télé il gagne doublement lim siy gagné mooy d'abord day gagné en audimat ñi ñi koy ñiy seetaan par exemple am na heure yoo xam ne yi série yi génn wala ngay génn téléfilm da ngay bari ay euh, ay ñi lay seetaan donc di nga di nga di nga di nga gagné si ñi lay seetaan di nga gagné aussi si xaalis alors que pratiquement sans lever le plus petit pouce aussi disons que affaire boobu tam dafa yomboon trop de la part de des des, des chaînes de télévision. xëy na bu dee ñële euh, ñu euh, bees ñeeg tubaab yi xëy na ñoom mën nañ ñëw sax ñoom production am ñu dugal seen loxo jàppale ci financé ko te loolu euh, njëriñ lay doon ci ñi nga xam te ne ñooy producteurs yi. bon de façon affaire yaa ngi soog a mais je crois que loolu tamit euh, dina dina dina am euh, parce que man au début j'ai approché par kii euh, kii représenté chaîne télé pour ma jox ko samay samay produits yi ma yi ma def ak yooyu mais loolu tamit envisagé nañ ko jël xaalis financé les troupes wala ñi nga xam ne ñi ngi def ay ay téléfilm wala série comme ça après ñoom tam ñu mën ko jël euh, diffuser ko donc au moins euh, c'est un pas en avant pas boo xam ne ñun euh, wax dëgg yàlla tamit dañ koy rafetlu xaw ma nag Euh, bu ñu demee ba si kanam naka lay demee parce que ñu ngi soog a man sax commencé gu ma joxe samay produit donc mënu ma si sori trop trop trop trop mais si li ma si jot a xam rek sincèrement moi je dis j'applaudis des deux mains. mën na nekk mën na nekk euh, lu am solo doon euh, une véritable industrie boo xoolee ci waa Nigéria yi nga xam ni ñoom am nañ sax seen label tuddee ko Nollywood maanaam seen série yeeg seen téléfilm yi ñoom waa Nigéria ay milliers milliards milliards la leen di jural boo ko boo ko xoolee weer wu jot waaw non seulement euh, li nga wax euh, dëgg la mais aussi mën na xam nga rek euh, en toute chose la concurrence dafay dafay baax quoi xëy na peut-être li ñu naan la nature a horreur du vide xëy na produit yi ñu ngi fi woon am na yu télévision chaîne nationale yi daan teg mais am na aussi ay produits yu bari yoo xam ne chaîne télévision yi daaw daaw ñu ko teg donc yenn troupe yi nga xam ne peut-être ay soleil levant wala marodi yi nga xam ne am nañu expert expérience am nañu notorité notoriété ñu woon problème pour accéder si chaîne de télévision yi mais j'en connais beaucoup d'autres troupes yoo xam ne ñi ngi def de très bons produits mais xamuñu leen donc mënuñu woon euh, accéder si kii kii nag euh, chaîne euh, sunu yëf bi dina permettre troupe yu ndaw ndawaan yooyu wala producteurs yu ndaw yooyu au moins ñu xaw a am euh, visibilité mën na dem tamit Babacar comme ni mu ko waxee ba nekk une véritable industrie waaw parce que dina permettre aussi les chaînes euh, national ñu mel ni TFM wala 2STV euh, affaire demee noonu ñu mën a tamit gis ne si si elles se sentent menacées par suñu yëf ñoom tem ñu xool naka la ñu approché les producteurs yi nga xam ne ñoo fi nekk wala les trouba ki demee noonu pour mën a tamit non seulement jënd seen produit mais aussi xëy na di leen jàppale pour ñuy def. Euh, des mais ñoom déjà manque à gagner la nar a nekk ci ñoom ndaxte euh, série yu bëri ñoom ñoo ko doon teg ak yooyu chaîne yooyu bu fekkee ne euh, série yooyu amatuñ ko xëy na audimat bi nga doon wax dina wàññeeku mais tamit rentrée financière dina wàññeeku pour ñoom. chaine nationales yi locales waaw mais généralement bon xëy na tamit bu ñu mësaan parce que man lan lenn laa laa seetlu bu ñu xasoon ba teg euh, benn série bu daw. bu jeexee rek jeex na laa télé du ko du ko. renouveler du du ko du ko rediffuser. te loolu tam c'était pas une bonne chose parce que du ñëpp ñoo am jot. par exemple man. franchement dama dama dama commencé seetaan série yi à cause de suñu yëf parce que bon dama amoon euh, ay fonctions yi nga xam ne amuma woon jot xëy na pour seetaan te bu ma ko waxee peut-être ñu bari dina leen jaaxal que série yi passé yëpp ay wiiri wiiri ay euh, idole ay mësuma si seetaan dara pratiquement xëy na damay yem parfois si euh, benn benn xool tuuti xëy na sax duma ko xool d'un œil attentionné parce que aw ma woon jot bi mais léegi grâce à sunu yëf maa ngi commencé seetaan euh, idole euh, dikoon Pod et Marichou alors que seetaanu ma ko woon donc c'est une bonne chose. mais yéen daal commencé ngeen a jalaxtale yi jublu ci sunu yëf ko bon dafa xam nga tamit euh, li nga xam ne da nga siy liggéey bu fekkee dafa am koo xam ne dafa la proposer loolu rek exclusivement mais vraiment tu es tu es obligé parce que dem seetaani ko du kii dafa bokk tamit si si liggéey bi ma loolu laay wax man temps bi ma amee jot dëgg doon def euh, production daa ko amul benn cassette bu mës a génn rek Sandaga wala ak lu film bi na xari na xari naa ko seetaan du début à la fin parce que pour moi dans cassette VHS wala très bien après ñuy dem VCD après DVD léegi ay clé moo xew léegi nag maintenant série série yi moo moo moo moo moo génn donc dafa bokk suñu liggéey euh, c'est pas que féetewuñu si kii bi mais ça nu permet ñun tout en regardant da ngay da ngay jàng dafa am lu bari loo xam ne moom ngay jàngat ci série même bu dul ci série yow yow bu ñu tegee si série yow tamit dina la permettre ngay xool erreur yi nga defoon yoo xam ne peut-être bu doon danga nga koy recommencer dootoo ko defaat donc loolu moo tax vraiment ñu kii ensuite tamit euh, man gisaguma sam bopp commencé guma liggéey ak euh, suñu yëf mais je suis sûr et certain que euh, producteurs yi Euh, wala troupe yi théâtrale yi ñi ngi si gis seen bopp parce que ay recettes additionnelles la yoo xam ne fooguñu ko woon foogoon nañ ne pare nañu si kii mais ñi ngi génn. maanaam dañ pare woon nga mënoon nga def benn série bu yàgg bu jàll fi ba noppi. nga jël jaayaat ko ñooñu. nga jaayaat ko noonu mm. ensuite dina permetre parce que xam nga série dafa yàgg comme par exemple Daaray Kocc ñun dañu commencé produire depuis longtemps am na suñu film yoo xam ne yaa a des jeunes qui ne pas gisuñu ko. donc euh, avec suñu. mais xëy na conditions techniques yi il faut peut-être remasteriser. Euh, les choses voilà euh, très bien loolu hmm. loolu mooy problème bi nag quoi parce que moment yi ñuy tourner man toujours loolu laay wax qualité technique bi que ça soit image wala son vraiment ça laisse à désirer quoi actuellement la technologie a a beaucoup évolué. mais malgré tout lu ñu mën a lu ñu mën a seetaan la parce que à l'époque nit ñi ñu ngi ko doon seetaan euh, avec les qualités avec aussi les défauts de des films sur le plan technique. Mhm. ne Daaray Kocc tey euh, yàgg nañu ngeen déggu leen euh, amoon ngeen bayre lool ay jamono mhm. tey ji nii troupe bi est-ce que nu muy doxee ak nu mu fu mu toll jamono ji. 2012 ba léegi génnewuñ dara. voilà waaw kii <laughs> Babacar mi ngi koy wax léegi naan euh, daaray Kocc cosaan la parce que daaray Kocc euh, bi mu tuddee daaray Kocc c'est depuis quatre 1980 avec la séparation ak euh, jamonoy tey. e avant jamono tey aussi y avait daaray Kocc bu ñoom Cheikh Tidiane Diop Tafa ñu doon jouer en français si semaine nationale yeeg yi demee noonu donc pour vous dire que daaray Kocc comme ni ko Babacar wax si euh, cosaan la mais gis nañ ne tamit depuis 2012 effectivement Babacar dafa mel ni moom mi ngi suivre daaray Kocc comme beaucoup de Sénégalais depuis 2012 avec la dernière production Aygaf daaray Kocc euh, kenn kenn kenn gisu ko mais quand même ñi ngi gis artiste daaray Kocc yi ñu ngi gis bu baax artiste ko koñ ensuite léegi avec euh, xam nga nag affaire yi dafa évoluer te xam nga dañ ne bu jamono soppeekoo nit dafay soppeeku ànd ak moom et actuellement troupe xam nga ñu ngi naan déggutuñu daara koñ déggutuñu daara koñ mais ban troupe la ñuy dégg actuellement nii. ah mais ñoom Soleil Levant justement est-ce que euh, bon xëy na troupe euh, de façon institutionnelle. Ah. amatul mhm. bu weesoo Soleil Levant bu cees ak mhm. euh, ñoom seex Seck sax xaw ma nu nu mu tuddati ñoom it. Thiès lañ dëkk Jànxeen mhm. Jànxeen Soleil Levant. Ah. xëy na ñoom rek ngay dégg effectivement ci institutionnellement ñu doon ay ay troupe waaye ñeneen ñi moom euh, c'est free. Ah, voilà ku neex waaye jouer sa dépend rek ci fi gis sa bopp mais loolu moo jamono ji moo ko moo ko waraloo même même boo xoolee. euh, soleil levant même soleil levant bon peut-être il euh, y a une si si seen euh, téléfilm yi c'est pas tous les artistes de soleil levant sérieusement léeg-léeg bu ko film bi laajee ñu dem euh, jëli mbër bu ko film bi laajee ñu dem jëli Lamine euh, Ndiaye dem jëli Lamine Ndiaye Moustapha Diop ils ont pris pas mal d' de daar Kocc pas mal d' artistes yu nekk si kii ki demee noonu quoi boo xoolee jànqeen aussi actuellement jànqeen gëj na produire mhm. mais euh, production bi génn mbetteel c' est pas c' est pas jànqeen mais c' est un élément de jànqeen Serigne Ngagne Serigne Ngagne bu jël ay artistes yu jànqeen jël artistes yu feneen ñëw def euh, téléfilm donc pour vous dire que concept troupe troupe actuellement si boppam euh, dafa du ma wax kii man man ñemewuma ñëw ne damay kii daaray Kocc buñ doon bu dellu si aussi dinañ am ossature daaray Kocc mais on va faire comme les autres parce que actuellement problème de casting la problème de casting la boo bëggee toog rek di def euh, troupe parce que bu njëkk ba troupe danga daan toog di répéter jël kii mais léegi avec lii am nii amatul répétition amatul répétition da ngay ñëw rek ñu expliquer wala ku nekk. jox la sa scénario nga lii la sa scénario. mais mais mais justement euh, justement mhm. euh, comédiens yi yi joué ci série yooyu ak téléfilm yooyu euh, daanaka gisuñu seen bopp yàgg na fi. daaray Kocc gi nga xam ni yaa fa wuutu sa nijaay Cheikh Tidiane Diop. mi nga xam ni eh, mag la wala rakk ci sa yaay mm-hmm. eh, artistes ya ca bokkoon yëpp gis nañ ni ñu mujjee ci wàllu sos social ci wàllu dund eh, yow sax dafa fekk ni xëy na yaa ngi liggéey poste nekkoon nga directeur ressources humaines bu bu bu poste yaa ngi jàpp ci leneen waaye comédien ci boppam xëy na ñenn ñi rek ñoo doxlee fii nu toll nii te wóorut yàlla baax na mais métier bi ci boppam doxul te loolu ëpp na ñeent fukki at léegi. Euh, surtout bu bu njëkk ba. surtout bu njëkk ba parce que d' abord il faut dire que bu njëkk ba euh, les artistes dañ ko daan def plutôt par passion vocation seen bëgg-bëgg la woon. jaraloon na leen sax ñoom ñu yëkkati seen parce que je je me rappelle Cheikh Tidiane Diop xaalisam la daan jël salaire pour euh, jënd ay sabar wala defar ay saxeet décor ak yi demee noonu quoi mais donc loolu moo tax ñu jëkk ba amuñu amuñu ko woon mais léegi peut-être moi je peux dire que révolution bi mi ngi commencé avec euh, téléfilm bi nga xam ne defe naa ñoo jëkk commencé def série bu doon passé télé euh, kii un café avec fa révolution bi commencé mais sinon avant mois je me rappelle cachet bu gën a mag ma fay si au niveau de Daara Koj c' était trois cent cinquante mille mais bi ma ko fayee artiste bi dafa tiit donc pour vous di te xoolal trois cent cinquante mille ma mooy sama production euh, l'arrangement mais donc pour vous dire que artistes yi gisuñu woon seen bopp si euh, si si liñ daan def yi demee donc loolu moo waral ñi nga xam ne ñu jëkk ñeeg ñu ngi doon dégg kii dafa feebar dañ koy ketal amul lu mu fajal ak ki demee noonu parce que les artistes n'avaient rien euh, vocation la woon bëgg-bëgg bi rek moo leen si bàyyi woon mais du woon euh, du woon du woon du woon xaalis bi mhm. mais léegi ak évolution bi nga aussi li muy indi mooy sa mbokk loolay indi ku jóg nekk artiste ku dugg yaakaar ne des waaw waaw mooy indi manque de qualité bi nga xam ne. voilà euh, qualité dootul amati aussi. mais loolu am na xam nga nee naa la daawuma woon seetaan euh, kii maa ngi ko commencé. Mhm. seetaan si kii mais maa ngi commencé am tamit un œil critique mhm. par rapport ak li may kii parce que gis naa ne duma ma leen condamné nag parce que c'est des artistes de la nouvelle génération ñi ngi soog a ñi ngi soog a jëkk amaguñu expérience mais sur le plan je daal dama seetlu ne li ma gis mooy artistes yu jëkk yi ñu nekkoon Daaray Kocc ñu nekkoon Thiès affaire de noonu am na ay séries yu ñu bokk je vois qu'il joue mieux ñoo gën a posé mais tamit ñooñu avant ñuy ak expérience la ñu acquérir tëbuñu rek mais nag quand même y a des jeunes yoo xam ne kil faut encourager mais dese na leen ñu bari mais gis naa nag euh, ñu bari bari na tamit ay bon peut-être euh, jeu bi des na tuuti euh, ku nekk bëgg nga si bëgg bëgg nga gis sa bopp bëgg nga am notoriété bëgg nga siiw bëgg nga am xaalis bu dee jigéen ñi bëgg nañu am euh, un très bon mari ñu gis leen ak demee donc tout ça Euh, fekk xëy na daal euh, am na tamit li nga xam ne sincèrement il faut liñ naan euh, kii la mauvaise graine quoi si si série yi wala si théâtre yi yoo xam ne peut-être rek xëy na mën nañ si waxtaan ba mu daj am na am na luñ ciy critiquer nag mhm. ba sax organe de régulation yeeg yenn association yi di ko ŋaññ mhm. jamono yi tey ak Daareel Kocc gis góor ak jigéen toog sax Euh, moom moom nees koy waxee waaye. Ah, euh, dendandoo sax loolu da ngeen ko daan bañ. mais dem nañ ba tey jii euh, ñu gis yenn séquences yi ci ci film yi am ñu ko critiqué am nañu ne dara nekku ci yow noo ko gisee. bon ko nag. parce que dama ko doon dégg rek débat bi xëy na sax aw ma woon temps suivre débat wala aw ma temps lire euh, exactement de quoi il s'agissait donc euh, euh, bëggoon naa bala ma si doon gën a mën a wax daal ma gis séquence yi peut-être je vais me si kii xëy na parce que li ma gën a gis daal ñuy wax mooy maîtresse d'un homme marié mais sincèrement je peux jurer la main sur le cœur que benn séquence bu gën a tuuti si maîtresse d'un homme marié seetaan ma mais bu fekkee fekkee niñ ko waxee tamit noonu la amee peut-être euh, bokkul bokkul ñun si suñuy kii ñun mënuñu ko accepter en tant que sénégalais mais aussi comme li may wax rek évolution dafa am les temps change et avec eux les habitudes jamono bu soppeekoo nit xëy dafay soppeeku alors mais pas aller nag euh, jusqu'à peut-être aussi que léegi ñiy def euh, téléfilm yi defatuñ ko ñun dañ ko daan def pour les sénégalais pour éduquer les Sénégalais pour les amuser maanaam euh, di leen euh, euh, sensibiliser tout en les divertissant quoi donc ñun dañ ko defoon pour Sénégalais mais léegi il me semble que les séries les gens commencent à exporter. moo tax mu jamonoy dox ni ñu koy waxee jërëjëf Pape Demba Ndiaye directeur Daaray Kocc jërëjëf Falaaj Ndiogu Dieng jaajëf mbokk yi yéen ñi ñu topp ci suba ak léegi ci RFM matin ci TFM ak RFM yéen doog jàmm.